jërëjëf mbokki taalibe yi niñ koy defee ci màggal gi rek la ñuy continuer ndax euh, euh, ki nga xam ni mooy ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di màggal gi nga xam ni moom la ñu nekk di 18 euh, safar mbooloo mi jugee fu nekk waaye tamit saaku nañu ay boroomi xam-xam yoo xam ne tamit dinañu waxtaane kan mooy ku tedd kooku di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci bisu màggal gi waaye sàkku nañu tamit ay boroomi xam-xam ñu wax ñu tamit jaar jaaru ku tedd kooku di Cheikh Ahmadou Bamba ba ko may 18 safar nga xam ni looloo tax ñu jël borom xam-xam ñu ràññee ko ci Daaru Xuddoos waaye ràññee ko ci yoonu murit ràññee ko ci Sénégal ci muy waxtaan di ñu xamal ku tedd kooku di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kan laa toogal tey ngir waxtaane loolu moom mooy Serigne Ahmadou Ndiaye Nguerane doon conférencier bu mag a mag a mag ci laay dem rek nuyu la euh, sëñ bi am mbégte di bokk ak yow saa su nekk plateau jëm lu jëm ci màggalu Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi lay fay ab nuyoo te di la ziar bu baax. jërëjëf dañuy daal dugg rek eh, ci waxtaan bi fi ñuy njëkk rek moom mooy eh, tey li waral 18 safar di ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ba ñu woote ko fii ci Touba lépp njaareem la woon kon dañuy waxtaane sëriñ Touba ak njaareem. Eh, bisimilah rahmaani rahim barakat Cheikhil Khadim mbokki jullit yi mbokki talibe yi. mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen fi mën di nekk ci pàkki suufi yi ñu ngi yëkkati sunu kàddu jëmee rek ci benn tomb boo xamante ni bëgg nañ ci laayante biir fàttalante yi itam muy tomb bu am solo mu jëm ci dund ku tedd muy Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba ni yàlla barkeel dund gu am njëriñ ñu jub bisam nag di bis bu am solo bis bu am histoire ci taarixul islam na fi ci senegal muy 18 safar di ab liggéey bu reuy bo xamanteni ni serigne bokk simbu digante mak boromam liggéey bu am solo bu am njariñ liggéey bo xamanteni ni kuñ raw ci liggéey bobu lañ la rawé mo nu taxa mel nu nu warut woon mel mo tax nu am lu nu warut woon a am wax barkelu liggéey bobu nangu ko sun borom nangu liggéey boobu nag liggéey bu yàgg la bu diire ndax buñ demee ci biir mbindam danañ gis ni moo wax ni liggéey bi mi ngi ko façon ci ama assasine waaye suñ borom a ngi ko feeñal ci ama jay sasin assasine mooy 1301 jay sasin mooy 1313 wa asaral xidmata ama jay sasin wal xal bu at marahu ama assasine mel na ni booba la ko ñoon liggéey ba nag buñ doon wax ab tàmbaleem li ci gën a fés mu ngi feeñe fii ci Touba ci këram gi tudd Daarul Xuddoos ci jàkka jooju nekk ci pénc mi ñaan ko jàkk yi sëñ Mbàkke Madina te sëñ Mbàkke Madina yee salaat ko foofee la sëriñ bi duggee li atikaaf ci ñaar fukki fan yi koor ga fukki fan yi mujj ci koor gi sëñ bi day tëju ci jàkka ja du génn buñ ko gisaatee dañ ni weer wi feeñ na mu ñëw ci jullikaay ba ci nettali yu ñu jële ci doomam Cheikh Abdul Ahad mu wax ni ci ñaar fukki fan yi ci ama bay sasin mooy 1312 la dugg intikaaf ca weeru koor wa ci ñaar fukki fan yu mujj ya fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu sëriñ bi itam nettali na ko ay yaanan nag la wax sëriñ bi nee na du ay nelaw du gént jenneeru ko itam da koo gis ak bëtam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ahlu badrin feeñu ko ca jàkka ja sëñ bi nee na waaye bàyyi na xijaabin raqiq nee na rideau bu transparent moo dox seen diggante maa ngi koy gis waaye mënuma ko jox loxo yant bi sallallahu alayhi wa xamal ko lu tax mu feeñu ko mooy cofeel gi mu am ci moom gis na ni ci jamono boobu yi amul ku mu tollooleel ak cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa tax yonent bi feeñu ko ci feeñu wuñ woow yi wax na ko fa itam ni ko sa ñeent fukki at des na ñetti weer waaye danaa la ko mottalil jox la garaatu xut ñoo xut bu nag baaxoo jox ko ko amul ñeent fukki at waaye cofeel gi nga am ci man ak fi nga toll ci yitte moo tax waaye sëriñ bi xamal ko ni ko moom loolu tox koo jóg maanaam xeeb na loolu daal yitteem gën naa kawe loolu garaatu xot bu yonent bi laaj ko lu yitteem mu ni ko ñiy ànd ak yow nga xam ni foo jëm ñu jëf ci ñooñ la bëgg a bokk te mooy lu badrin yonent bi xamaloon ni ko loolu moom faat na ndax ñooñi la leen ko may mooy dañoo tuuroon seen deret ca njëlbeenug lislaam ñaareelu at ca gàddaay ga di fukki fan ak juróom-ñaar ca weeru koor wa lim bu tuuti jàmmaarloog lim bu rëy ngir yëkkati baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulillah ñu joxe seen deret suñ borom jox leen ndam ndam loole moo leen may fu yonent bi nekkati ñu ànd fa ak moom te ñooña boroom xam-xam yépp d'accord nañ ne fas yañ doon war pour it may génn ci gémmiñu fas ya moo gën a for jëfi wàllu yu kamal kon ña doon war ca kaw fas ya kenn waxalewu leen ndax ba fi mu toll nii lépp lu way yëngu ci lislaam am nañ ci pourcentage ndax ñoo tee kàddu goog yi àgg suuf seen deret ko garanti ñu jox yàlla seen lépp sëriñ bi nag dikk ci siècle yu mujj yi ba pare ni ca ñooña la bëgg a bokk loola lu jafe la waaye dana ci wane itte sëriñ bi itteem ju kawe ak dox gum dox jëm ci boroomam loolu yonent bi xamal ni ko faat na ndax ñooñu loolu moo leen ko mayam waaye sëriñ bi mel ni ak bëggam moo koy poussé mu wax rek ni loolu la bëgg yonent bi ni ko mën naa am waaye nag ci kaw ay nattu yuñ lay teg nattu yi day bari lool day diis gann itam te cofeel gi nga am ci man tax ak yërmaande ji ma am ci yow tax na bëgguma dara di xajamal lool yi sëriñ bi xamal ko ni ko daal fekkente ni nii mënees na koo garanteel ni ak room du ci des nattu yi ak nu mën a toll ak lu mu tar-tar moom jomam mën na koo gàdd mën na koo dékku yonent bi xamal ko nattu yi ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñett fukk ak juróom mooy limub sóoratu bàqara benn bu ci ne nag bakkan xaj na ci waaye boo ne oh rek loo ci defoon da ko ñàkk mën nga caa doxi alko sëriñ bi nangu loola loola mooy njël njëlbeenug liggéey ga foofa tam yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamal nako ni ko dekk bi nga nga sanc muy Touba ndax bobu juróom-ñaari at la fi amagon ci dekk bi juróom-ñaari at kep la fi am ni ko loolu yi nga labul ñaan ci Matlabul Fawzayni lepp sun borom nangu nako te li feeg yaangi ci biir dekk mom len ben natt du la lolu mo sabab bañ waré rek fan lañ ci tek serigne bi daal di toxu dem bakki Bari ge ci Jolof lolé itam da nga ci xamé fitam ak jomam ak ngorom ndax sancub dekk di xari nattu mom seigne touba rek ko jëk def ci islam islaam guñ ci ko xamanteni ni dafa gaday ngir fekk ay nattu comme mos a gàddaay ku ne dañ la togn tognal ci barab xagn la jam nga tak say bagage wuti fo amé jam seigne touba bayyi fim doon amé jam fo xamni nenañ ko ben do la fekk te sun borom mako garantie te yalla lu mu wax dana ko def dem ci dëkk boo xamanteni ni ay natt rek la fay xaar mu bokkoon ci lam ko wax itam mooy sa nijaay muy sëñ bu bi mi bokk soxna jaara nee naa ko waaw ba pare te deetuma ko gàntu su ma ko nattoo ci su ma la nattoo ci sa kanamam su natt bi diisee dana ñaan te bu ñaanee ma tegg te kon li nga bëgg doo ko am bañ demee ci tabaski wala mu wàcc liggéey fukki fan ak juróom-ñaar ci tabaski wala mu dem mbàkke jaale jëkku del siwaat bañ demee ba ca fukki fan yi ak juróom-ñett ci weeru safar ca la takku laxasaayam nag génn tubaab yi jëlsi ko mu ànd ak moom ci biir liggéey bi muy liggéey bu diire nag boo xamante ne ni daj na fa yu bare bari yoo xam ne xel mënu koo xalam du ci ñàkk nag yu fajkat yoo xamante ne ni benn moo koy nettali walla mu feeñ ci mbindam walla tubaab yi bind ko waaye foofee ci mbàkki bari lañ ko jëlsee ma abduloo moo ñëw jëlsi ko quartier gaa ngi koy xaar ci jeewal gaawu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di le 10 août 1895 di 18 safar 1313 waaye la lay la sukkandiku ci mbindum sëñ bi rek mooy la mu wax mooy xusóor ya xalaat wal ahlu anni tafarraxat li matxi lesi xan ulmadihu xasiru xusóor ya xalat mooy samay njënni wéet na mooy tas nañ ay dëkkam fay nañ ay taalu jàngam tàggale nañ ko ak njabootam waaye nee dara waralu ko nag lu dul ràbbal mbubum tàgg yont bi sallallahu alayhi wa te nee na jëmm jooju kat mbub moo ko ràbbal soo gisee jëmm ja da am kersa ndax def ko dul jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bindkat yi mënaguñoo jot dëgg-dëgg aqiqatul muhammadiya ndax la sëñ Tuubaa wax rek fa mablaxul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu dunahu aqlun wa afkaar nee na yonent bi daal lu ci waay mën a wax te dëgg mooy bindeefum yàlla la waaye laneen waay wax ci moom rek ci xel xalaat nga ko teg waaye yonent bi ëpp na foofu ndax nit ba nga ko mën a jugé day fekk nga ndar mën koo ndar képp te mboolem nit yàlla yépp ci baxu yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam lañ doone lañ doon te mom limu doon kenn ci ñoom taxut mu doon limu doon sun borom la soob mu def ko limu doon motax mënu mënuñoo daj deug deug aqiqatul muhammadiyya señ tuba nak neena ko ki motax bëgg gi mako bëgg ak sopp gi mako sopp ak leggeel gi mako leggeel motax ñu tek ma yi jaral na mako motax muni liman bi hubbihi nasaytu layla wa sahaban wa fiddatan wa khayla neena bëgg gi mako bëgg motax ma fatte layla Layla da doon jigéen ju taaru ci araab yi araab yi dañ koy jëlee ci misaal bu ñuy wax ci mbirum jigéen di ko indi comme misaal nee na fàtte naa taarub Layla xamatuma ko xamatuma itam valeur or walla xaalis xamatuma itam valeur naaru góor bu baax ndax boobu mooy alal yi nga xamante ni nit ñi ko am defe ni sa àdduna jag na nee na bëgg ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam far na bëgg yi ma waroon a bëgg yooyu xamatut loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ko tubaab yi jëlee ci tënk rek daat koy jaar ak moom jeewal jaar kokki ñëw Louga andi ko Ndar ñëw Ndakaaru euh, le 21 septembre ñu embarque mu dem Gabon ñu exile ko ginnaaw boo xamante ne ni ñoom waxtaan nañ ci conseil privé nga xam ne jugement ba vie clos la fañ ko doon sujet vie clos la tubaab rek ñoo fa nekkoon léeg-léeg nag jamono daan sànni indi nu image yoo xamante ne nii du image yu réel muy léeg-léeg ñu jox la photo indi la Cheikh Ibra muy roose bureau bi ndox fekkewu ko léeg-léeg ñu indil la photo sëñ bi waaxu jublu taabal ji nga gis bàyyi xaalis di ko kar fekkewu ko yooyu yëpp du lu réel yu ñu formé gannaaw bi la rek ñooñu dugal ko ci waaye demewut noonu véhicule la euh, fañ ko doon àttee tubaab yi rek ñoo fa newoon. ak moom sëriñ bi ak du Sekk bun Moxtaar mi nga xam ne moo doon traduire li sëriñ bi wax bàyyi woon dañ ko fekk muy jàpp ñu indi ko biñ ko indee moo tax mu julli fa julli ga doonut woon lu mu programme yi ni bu ma demee bureau gouverneur danaa fa julli dafa aadoo saa yu jàppee njàpp mu bees julli ñaar rakk te bañ koy jëli jotu julli ba mu dikkee mu julli fa même gouverneur général laaj na ko ni ko loo jublu sa julli gi da nga ñoo jubloo naqaral wala sabotage nga ci jublu mun leen déedéet yooyu du sama mbir dama jublu dama aadoo saa yu ma julle saa yu ma jàppee jàpp mu bees julli ñaar ràkka loolu dafay aadaam te kenn mënut tax mu bàyyi ko loolu tax mu julli ca barab boobee moom la ñuy màggalaat na ah, julli eh, ñaar ràkkaay ndar yi ñu jële ko fa ginnaaw boo xamante ni sax na fa ab diir bu néew yu bare bari dikkal na ko foofu ci dar eh, ndax gaynde gi ñuy wax foofu lañ ko boole woon ak moom fofi itam le bind khasid ak asiru asiru maal abraari hina asiru wan ko Ahmadou ndjay ma béy ni ko sama sere dana ne del wat fekkat la fi ci rew mi ngay dund loolu fekk faatu loolu moy kon xamone ak demam nga xamne lam wax khasid ga rek asiru maal abraari hina asiru wa zanna al ida anni hunaka asir moy mi ngi dox ànd ak gaa yu bax yi waye tubaab yi dañu jappone ni ñoo lañ japp moom nag ab liggéey la boo xamante ne ni xam na li waral liggéey bi xam na itam ñi mu àndal ndax ci biir dox ba daa wéttaliku ndax ahlu badrin la àndal te yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen jiit kon wéttaliku na waaye ci gis-gis dana wéet ndax ñi mu nekkal saay si rek ñoo ko yor mu dem ndakaaru alxamis ajjuma gaawu ñu embarqué ko mu dem ci géej gi def fa at yu baree bari ci lu mu bindal boppam mooy samaan ya xijajin ila xalilan juróom-ñetti at yu manqué tuuti moom la fa def delsiwaat ci réew mi bi mu delsiwaatee ci réew mi itam jàppoon nañ day toog ndax bi mu delsiwaatee rek tubaab yi bàyyi nañ ko mooy mu wàcc ndakaaru yàpp ko ci saxaar mu wàcc ndar yónnee lu darul mën naan wooyi lu maam cerno ni ko buy ñëwit na ànd ak Amar Fall Mbàkke sama doom ak asumbak Kajor ak muhammadul mustafa ñoo ñi la mam ciorno andal bi ko sëñ bi wolo bi mi ñew bi ñu tamla tam lañ door ubbi wagaw saxar bi mu dugg ci bir fekk fa sëñ bi ñu nekk fa ab dir bi door a génn bi tam la euh, bi joge fofu ñew luga euh, ñew sànn def fa wer juroomi fani koor ga bañ wori ci juroomi fani la fa door joge wat door topp réew mi nitam yi nga xamante ni ñoom la amoon démb ak barki démb ñu ay wëlëreem mu jaar fa ba ni mu ñëwaate daru salaam jóge daru salaam ci nganuk ma Seex Anta gi ñëw darul man naan mu amaat ay tànk-tànk diggam ak mbaaxaan ci 1903 ndax le 11 novembre 1902 la ñibbisi waaye kon dangay gis ne at ma jeex na te 1903 yi daanaka kay 6 mois yoy la fi am tank tànk amaat diggam ak baxan ñu yobbu ko gannar motax ba mi dem gannar mi ngi wax ak tuwa bi ni keuf jigen ay at at mënu loko dara genn guddi du nga am ci ndam moy xam nañu tuwa bi mom duñ am ndam ci mom ndax yoonu geej gi mo gëna a yoonu gannar ndax be juroom ñaari at la yu tek ay weer ñu ko gannar am faak mom ñenti at dara sottiwul lañ bëggoon ci mom lañ bëggoon ci mom moy déstabiliser ko rek ak itam doomu aadama yi ni ñu amee complexe ci diggante ku weex ak ku ñuul ñu jàpp ne bu nekkee foofu ci naari gànnaar ak ni ñu amee xam-xam ak ni ñu amee wilaaya deetuñu jébbalu ci moom deetuñu ko faale dañuy ànd jeeg Seex Sidiya loolu rek lañ ci jublu woon mu mu mu wane leen wan fa kiimaan yoo xamante ne ba léegi am na ay seexi naar yoo xam ne ay murit lañ sëñ Tuubaa leen seexal wérdul maaxuus lañ yor ki te sëñ Tuubaa mooy seen buntu seen digg ak seen borom subhanahu wa taala ginnaaw bi lañ ko fa jële indi ko Ceyeen Ceyeen 1907 la fa ñëw ba 1912 am na fa juróomi at Ceyeen itam tubaab yi bi ñu ñëw dañoo xool ni barab la boo xamante ni dafa isolowo mooy da xaw naa sori gis nañ ni itam du barab bu neex a nekk ndax tàng na ndax ci jolof la gis nañ ni itam ni barab la boo xamante ni nii jàpp nañ ni bu fa nekkee kenn ko fa fekk ndax soriwaay ba ak naqaree dem nga ak naqaree nekk nga waaye dafa mujj mel ne nit ñëpp seen yitte ceen jolof la fu mu fi nekk rek ndax gànnaar it bañ ko fay jëlee lool la mujj dem daa mujj jàpp ni Sénégal ak Mauritanie day mujj jaxasoo doon benn ndax Mauritanie waxtu ci nekk ñu waaye waaye xamatuñ sori ga ñu ngay dox di dem kenn ku ci nekk moyen ya am bi mu nekkee Thièyène itam na ko noonu dafa mujj Thièyène résidence surveillée lañ ko fa def nga xam ni. boy bo fay dem da ngay ñaan visa moy da ngay dem ci commandant de cercle bi nga nek ñaan autorisation wax ko ni ko damay séti ahmadou bamba ñu may la autorisation wax la nombre jour yang fay dem yang fay am su ko wesso ñok yow la mu am ay jafé jafé yu bari ndax nit ñi bu ñuy demit bobu addu kalpe yu bari nañ té tuba bi ñoo leen di yabal, xamal leen ni barab sàngam diw dana fu joggé jëm seigne tuba nangam lay yobbu ngir ñu kar ko nangulam yor ba du àgg yooyu yëpp ay gàllankoor la yu ñu doon def foofu yi ci Ceyeen Jolof sanc na fa ñaari kër genn ga Daaru Rahman la ko tudde gi mujj sanc mu tudde ko Daarul Xuddoos moom it juróomi at la fa am door faa jóge nag ñëw njaareem ci càkkuteefuk tubaab yi moo tax mu ne raamoo masiri ila jurbel la daa lasasin la waayenoo sirrama fi sayri ma raamu nee na tubaab yi day ñu ngi sàkku sama dem njaareem ci amal assasine mooy 1330 di 1912 mu ni ñoom day bu ñu xamoon li ci sama demuk njaareem duñ ko sàkku sama demuk njaareem day mooy seenuk dee ñoom mooy seenuk toskare ba faw man nag mooy sama sama sax mooy sama teraanga yoo xamante ni deetut deetut dellu gannaaw maanaam kanam rek lay jëm te loolu fees na ndax mbirum sëriñ bi ñu ngi des di ko waxtaane ba léegi te bari na ñoo xam ne boo leen laajoon jamono yi fa sëñ bi ne yan tubaab fa newoon xamatuñ leen àdduna fàtte na leen bu yàgg kon la sëñ bi waxoon ni mooy seenug dee mooy seenug tuskare loola lu yomb la yàlla foofu ci njaareem nag bi nga xamante ne ni sëriñ bi dem na fa ci seen wet lañ ko teg kër googu ci seen wet mu ngi ci wetu école Ibrahima Thioye te ñu koy wax école régionale léegi am na bâtiment bu ko penku foofa lañ ko wàcce woon ci seen wet ngir bëggoon rek saa yu ñu xëyee xam ci lum ne foofa am na fa at ak ñetti weer yoo xamante ne ni saa yu ñu xëyee jël seen bët bi teg ci moom nga xam lu mu nekk foofa it dañoo limité woon ña fay nekk ak moom ndax barab ba na mu bindoo mënul woon a jël mbooloo mu bari moo tax tubaab yi mayuñu woon mbooloo mu bari dafa ne waxon nañ ko sax ni ko da ngay wax ñi nga xamni mëno leena ñak da nga leen di soxla ñu nekk fi ñu ci dess mom ñu abal ñu fi bañ ko waxe waa daare kamili yi ñom ñoy ñi nga xamni mëno leena ñak muy ñaar fukki tak juroom ñatt yo xamanteni ni daf leena tan ngir ñuy jang alquran bis bi set nga xamni ni yu ñu xeye yor yor danañ jang ñaari kamil bu tisbaaree ñu jang ben, bu takusané ñu jang ben su ajuma ci guddi ñu jang buñ xeye jang ñaari kamil bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ben bu guddee ñu jang juroom ñaari kamil di rub lim sax ndiarém non la fa nek lolu moy waxtu julli wone dana and ak kamil alquran non la doon dundé ginnaaw bi tuba bi sétlu ni saa yu yor yoré dana dañ ko gis mu dugg ci xur wi ci faw gi nek tay fa lay nekk di naafi la di jàngaar xuraan di bind bindam ba mu naaj bant kii mu door a del siwaat ñu ne xam naa ni place bi moom ko ko jox dana fa ne ndax mel na ni xelam a ngi ci tubaab yi toppatoo ko ci séeréer si fekk na itam mu doon place boo xamante séeréel si nanguwuñ koo bay séeréer si ak mbay dee lañ ko tudde dañ ko ragal dañ ko fa bàyyi ndax nañ ko ko bay dee ba taxoon ñu bàyyi ko fa mu booy dañ xamee ni sëñ bi soxla na ñu ni waaw kay léegi nañ ko ko jox bala yag léegi mu génn àdduna ndax sa xiram yi séeréer si ñoo koy rey ndax ginnaaw séeréer si ñemewuñ ko te moom mel na ni ñeme na barab bi bu fa dëkkee léegi mu génn àdduna tax ñu jox ko ko xam ne ci 1913 la ko sanc tudde ko al mubaraka mooy pàkk bu ñu barkeel moo tax mu ni lahu xitaab yi ama talsasin la daa buqaati lati tuniirul balada nee na yàlla maa ngi maa ngi discours ak yow maa ngi lay joyal samay kàddu ci sama pàkk bi nga xamante ne ni moo leeral dëkk yépp ndax foofa la àdduna dagg mujj fekk ko fa kenn ku ci nekk ci mag ñi foofa lañ tibbee xal yóbbu ko fañ nekk ngir leeral ko taali lislaam yi ñu taal ci réew mi ci bari foofee la ko mag ñi fekk foofa nag xatoon na lool ndax mbooloo mi dagg wuti ko booba la nit ñi commencé xam ku ànd ak Sëñ Tuubaa nu muy mel ndax ca njëlbeen moom ànd ak moom yombut ndax benn ñenn ñi ñemewuñ ko ndax tubaab yi ñeneen ñi ci des ñemewuñ ko ndax seeni bokk ñu ngi leen di xas ndax dañ daan wax lu jigéen yambare yambare yambare mën a jur ab murit wala mbërum làmb mbaa nama dal nama dal mooy ab yanukatu saako nga xam ne ñaari yëkkati mu yanu dañ daan wax lu murit lu jigéen yambare yambare rek mën naa jur ñooy euh, bis wax nañ ko ba mu dégg ko mu ni leen ñaar ñi de sama yoon nekku ci waaye bi ci des danaa ci tontu ndax képp ku tudd murit maa tax daal ni leen des na tuuti ci kanam lépp lu fi waaye di jaay te ni doo ko jaay murit dana yàqu ci say loxo loola agsi agsi nañ mu doon acte bu am solo foofu yi ci njaareem dëkk na fukki at ak juróom wax na ni ci njaareem laa jëmbate garab di ko suuxat ci sama satla ki ba toog ca kër ga waaye diggante bi amatul faneen fu mu fi yàggee noonu njaareem nag def na fukki at ak juróom muy xay goog yi ci biir kër sëriñ bee ko jëmbat ba toog ca kër ga kon dafay wane rek ni yàgg na njaareem ñaari yoon itam la ko mos a génne benn bi 1919 la te xuru mbàkke la ñëw te dañoo ñaan autorisation ngir mu ñëw xuru mbàkke xuru mbàkke waajuram fa la nekkoon sëriñ moor Anta Sali soxna jaare itam foofa la newoon xuru mbàkke googee lañ jóge ñoom dem Saalum fekki Màbba rakkam ji topp ci moom it foofa lañ ko denc bari na histoire yu ñuy nettali ci poroxaan xewewul poroxaan foofu yi la xewe ci xuru Mbàkke dellu woon na fa itam ndax ñu rakkam jooj yi fa nekk nga xam ni mooy Habibullah nee na diirub muy ne ci géej gi waxtu wu ci ne dana ko feeñu xamal ni ko ni ma wéete te wutaloo ma wéetal bu ma la mujjoon gannaaw doo wéete noonu moo taxoon sëñ bi yabaloon fa sëñ bay jaxate mu sañcaat dëkk ba yebal fa it Cheikh Ibra moo tax 1919 lañ ko ñaanal autorisation ngir mu delluwaat fa dem seeti leen beneen bi ci des 1922 la ndakaaru la fi dem te gouverneur général moo ko wolu woon ñaari yoon yooyu la fi génn tubaab yi mosuñoo nangu mu génn fenn bi muy door a sañ ci foofu sax day def saa yu xëyee daana dox ba gouvernance mu présenté wu door a dellusiwaat mujj daal ñu xamante ne moom moom liñ koy defloo loo metti na te mag la sonn na te moom dawut jëmut fenn war nañ ko mën a bàyyi daal ci akuk dal buñ ko soxlaa fekk si ko mujj tubaab yi may ko jàmm may ko afiya bàyyi ko nag mu nekk ci biir këram kër googu itam da doon kër gu rëy gu yaatu goo xam ñaari seng la ko la ko la boole woon ngir kër gi tàppaat bi mën a mën a dëll ndax da daan wax ni daa bëggut naari gànnaar yi buñ toogee ci seen giléem yi di xam lu mu nekk ci biir kër kër ga jamu yalla rek la fa nekké won ndax kër ga la kessé reey reey mom rek mo fa daan fanan su timis joté bañ julli gé ba paré mag ñepp dañuy dellu seeni kër mom lañ fay bayyi mo fay dess ak léeg-léeg gone yi nga xamante ne ni sampaguñ kër ño fay dess ngir bu soxla wolu ca kenn wala bu amé lu muy yónni yónni yónni leen ko dawut na law itam nak dawut nelaw boo déggee mooy daawut sabab lu nelaw nelaw moom nattiir la ci doomu aadama ala kulli xaalin nit mënu cee mujj waaye daawu ko sabab lu mooy du toog fenn di ko xaar mag ñi daan nañ wax ak moom ba mu yàgg mu ni tekk bu ne tekk rek ñu xam ni dafa foot bët ndax dañ koy yërëm ci coono yi mu nekk bu ko defee dañuy rocc ku ndànk ngir bañ koy bëgg mu dallu waaye du ko nangu su ne xefeet nga dégg mu tudd yàlla muslu ci seytaane daal di delluwaat ca la mu nekk موتاخ داي كي قصيده غي واخ الرائيه ماغي كي واخني قلبي له في عتاب الجسم تكرر لانه للهدى والنور جرر يلوم جسمي دابا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس قرر نانا بكان بي داي يد يرام بي ناخ ليمو يينا سي جامو يالا يرام وي اتنوكو مي موتاخ واختو سي بي دا فا يد يرام بي اك سيرنتو اك نيم فارلو nga xamni lam tego won ci yéeme na euh, foofii ci njaareem ci la ko mag ñu bare bare dagg fekk si ko seex su bare bàyyi seeni dëkk ñëw installé réew mi fenn fu ne nit di fa jóge di gëstu si mbiram ñenn ñi bëgg a xam ba xam mbiram dëgg-dëgg nu mu demee ndax boobu ubale na senegaal turam daj na àdduna daj na biir réew mi fenn fu ci nekk ñoo ngi ko fay joobe yàlla defal na ko loo xamante ne ni mosu koo defal ku yàlla bind moo tax saadu abi yi bind ci xalifa samaanu la yaati anna bi mislihi kazabat yaminu ko yaa samaanu fa kafiri nee na àdduna daa giñoon ni danaa fi indi ku mel ni sëñ Tuubaa saadu abi yi ni ko fen nga kafaaral sa fen yi ku mel ni sëñ Tuubaa dootoo ko fi indi loolu moo taxoon réew mépp dagg kenn ku ci nekk di ko seet si ba xam kii ban saaru nit la ak lii muy def lu mu doon ndax booba mënoon na lu kenn mënut daana def itam loo xamante ni nii kenn defu ko tegoon na ci jaamu yàlla koo xam ne mosuñoo dégg ci histoire l'islam ku ko tegoo ci ci jaamu yàlla lëggeel yonent bi sallallahu alayhi ci bind bind xasida rek li mu bind normalement boo doon seet da naan ndax doomu aadama mën na ko bind mosuñoo gis ku ko mën a bind ci ak ni mu ñàkki jot nga xam ci loxo ay loxo la ne yoo xamni waxtu ci nek ñu koy bund xatal ak lim fi bayyi ci am bindum loxo yobbu alquran nit fo xamanteni ni alquran bam wacce ci yonante bi sallallahu Alaihi Wasallam. ba ci seigne touba moom musu ko am alquran ci seigne touba la jëkk amé kër ñu tudd ko daaray kaamil ci seigne touba itam la amé mbolo mo xamanteni ni seen yitte jëpp moy jang alquran bes bi set ci façon bobu mu koy jang doon def itam kep ku indi kamilul alquran mu jox la lo xamanteni ni mënoo am ci sa mbay mujj ñu rafet loxo ñëpp amatuñ benn liggéey bu dul bind ay kaamil di ko yët am na benn bis foofu yi ci njaarim jënd na fa juróom-ñetti téeméeri kaamil yoo xam ne ci benn bis la ko jënd loolu day wax ne ak fonkam alxuraan néegam yooyu itam néeg ya la ñuy bari bari bari bari bari amu ci benn néeg boo xam ne daf koo samp ngir di ca tëdd néeg bu ci nekk am na lal waaye lal ba ay téere lañ ca teg di jël laj ko la ñuy sikk bu seer di ko ca sotti yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xablu kunt tabibi nga xam waxtu ci ne day way alquran diko sargal diko bak diko diko barkelo nga xamanteni ni tam njabot gi ñom ñep daf leen di pousser ndax xam nañu alquran modik di bëggam ku bëgg lu ko neex rek da ngay bind kamil bu rafet njox amna benn bis ci njaareem xeyna ñuy sentu ñu wër yu xeyna mun leen dama bëgg bala bala ñu ne ma weer waa ngi nii ngeen di ma kaamilu alxuraan a ngi nii loolu moo ko jëkk am ci àdduna ñetti fan ñu bind ci kaamilu alxuraan mag ñi séddoo ko seddoo kayit ga kenn ku ci ne ni may tàmbale barab sàng barab sàngam bi ñu séentoo weer yi bañ naan weer yi feeñ na la mag ñi jébbale kaamil boobee loolooy def ko xàll muy lu ko suñ borom may muy may gu biire goo xamante ne ni ca Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba ci bisam boobu yi kenn mësu koo am fii ci mi itam lu bare bari xew na fa ndax liggéey bu rëy boobu yi nga xamante ni moom la sumboon te sumbee ko fii ci Touba ba tax suñ boroom tëggee ko ak ay noonam liggéey boobu yi moot waxoon na ni saa yu bis boobu yi dellusiwaatee muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar suñ borom dana fulaat nattu ya teg ko nga xam ni weeru safar moom saa yu teroo fukki fan yak juroom ñett lu ko sun borom tegaat tegon ci natt dana ko double tegaat ko lolé itam da nga ci gis ak mëna muñum da nga ci gis itam ak yaatom da nga ci gis itam yittem ju kawé da nga ci gis ak wo borom ndax do dégg mukk mu jambat musta salit waxtu ci nek sa yo ko gisé sa xol bi gëna jaaju wat ci jaamu yalla waxtu wa ci ne sa yo togué ak mom gëna yeddat sa bop sa yu addo da lay ci jaamu yalla motax li xew legi bu fekkon mag ñi danañ danañ waru muy seigne Touba neena ngay sar xol seigne Touba neena nga xaq tay mag ñi xamuñu ko mag ñi dañ dan wax ni sa yo joge ci mom waxtu lek so deme do ko soxlu ndax dana la jàjj delloo la ci sa borom ba doto soxlu lek lay gëna xirtal ci jaamu yalla mu doon dund dund wu yeme fofu yi ci ci njaareem ndax da dem ba mujj xat ba nga xamanteni ni nit man na fa yag te do ko teg ndax kër-kër ji mu nekkee diggam ak boromam nga xam ne aw yoon lañ ko mujjoon wutal ndax moom waxtu wu ci nekk ca jàkka ja lay jullee du am benn bis boo xamante ne ni da tayal dana ko dugg walla tab ja ba mu jullee ci biir néegam wala jullee ci genn kees saa yu ñu noddee ca jàkka ja lay jullee te nit ñi dañ koy kar ndax da cee bari ñoo xamante ni bu leen rëccee ci jàkka ja dituñu ko gis mujj aw yoon lañ ko wutal wu sew moo xam dañ koo sàkket ba ba mu dugg ci biir jàkka ji nga xam ne duñ ko gis mujj neeg yi bare bare ay fenêtre lañ ko wutal leg leg mu ubbi ben fenêtre tollu mbooloo ma foofa wax ak ñom jajj leen wat leen ci boromam door a jàll mujj itam lu mel layu lañ wut wala caisse di ci def suuf ndax fu mu toog ma ngay jàngale leg leg muy jàngale ci ay tomb lolou itam pédagogie la bo xamanteni ni moko jëk am ci aduna te gisatu ko itam ko ko ci fekk ndax ci biir tomb yi dana ci lëm ci xeeti xam-xam loo xam ne boo la ko waxee ni muy duggee boo demoon ca téere yi mën naa am da nga jeexal téere ba te doo ko déggee noonu loolu itam lu ko suñ borom mayoon la ci xeeti jàngale ak wax ak nit ñi ndax da ci am mag ñu daje woon fi moom ñoo xamante ne nii teg téere ci seeni penk mënatula ne ndax jamono mayatu leen ko loolu faaw sëñ bi am formule boo xamante ne nii ci wàllu pédagogie dana ci mën a jàngale eh, lim leen bëgg a jàngal. te du jar muy delluwaat ca téere ba ndax mu ah, leen di jàngal nodd rek nodd nodd képp dañi boo dégg buñ ne allahu akbar ca jàkka ja ne déggatoo lu ko gën a doon dëgg ginnaaw déggatoo lu ko gën a doon loo mën a wax buñ ne allahu akbar da nga war a noppi ba nodd gi daanu nga door a wax soxla loolu la ci jublu moo tax mu ne buñ ne allahu akbar déggatoo lu ko gën a doon dëgg ginnaaw déggatoo lu ko doo war a gën a doon dëgg nag kii wax ak yow waratoo ko wuyu te yow ci sa bopp waratoo wax mu ni buñ ne la ilaha illallah ca jàkka ja kat ba bu daaneele ba ni la ilaha illallah ne defatoo lu gën a war julli léegi sa yitt jëpp mooy waaj jëm ci sa borom te noonu la ko doon dunde mooy bu ñuy nodd booy wax ak moom du la wuyu su noddu gi daanoo itam nee na bërët même bu fekkoon mu yor barada di xel ni suñu noddee day tàqale baaraam yi wàcc mu daanu du ko taaj day tàqale baaraam yi rek jóg romb ko fa ña fa nekk ñooy for bagage yi dajal waaye moom day wàcc rek mu dem mu continuer dem dem ca dem ca jàkka ja nga xamante ni nii waxtu wu ci nekk mii miinoon na jàkkaam ba ku ñëwut dana ko xam bu sëlmalee ku ñëwut rek dana xam ni diw dikkut te dana la woo soññaat la ci jaamu yàlla daa dana xajjee itam bu baax a baax daana toog ci biir këram it mag ñi wër ko léeg-léeg aal ji dikkal ko waaye day tibb suuf leen ko sëllëx irji'u ila rabbikum loola dangay xamante ne nit ñi fi daje moom dajalewu lu leen fi maanaam daa jëlewuñ fi ci coobareem xëy na nit ñi mënatuñ ko muñ ndax moom daa mujj mel ne yàpp wu xëpp fu mu nekk weññe ne fa mooy nit ñi gis nañ seen njariñ ci moom fu mu ne ñu ëngam loo wër ko waaye moom doonul woon lu mu sàkku doonul woon itam loo xamante ne ni moo ko kere ndax mbooloo mu la wër ngay tibb suuf di leen xëpp an dellu leen seen borom jaamu ji leen yàlla seen borom irji'u ila rabbikum loolu mooy bëgg xiirtal nit ñi ci jaamu yàlla wan leen yàlla wanut woon nit ñi boppam suñu borom a ko wane waaye wanut woon nit ñi boppam te bu ñu sukkandikoo ci li mu bind lépp dañuy gis ni ki mu doon wan ba léegi gisaguñ ko ndax moom yant bi sallallahu alayhi wa képp lanu doon wan xejjub suñu borom boobu yi lan doon wan fii darajaam toll nga xam ne boo gisee li lim bind huwa nabiyu wa rasul wal xalil huwa joo gis rek yonent bi lay moom moom lay tegtale leen kaay leen xool sama waa ji ni mu mel di wax qualité yi ci yonent bi lakkal fadlu yaa muxtaar yooyu muy wax yëpp wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara di leen wàññi leen ku mel ni kii moom yàlla bind ko fenn ku yàlla bind yont bi sallallahu alayhi wa sallam tax waaye damay wax ni moom ci jëmmam nag kiimaane gu mu kiimaane moo tax suñu bët aggugut ci lim ni wan moom ci boppam daa kiimaane moo tax suñu bët ci moom la yam moom gisaguñ lim ni wan xëy na bés dana ñëw nag nu jàkkaarloo ki mu bëgg nu gis ko te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sangam boobu yi nga xamante ne nii moom la doon liggéeyal nga gis ni foofu yi ci njareem li ëpp ci caddo yi foofu lañ ko fekk jox seen bopp nga xam ni ak caddo ci moom la jeexe li ëpp ci ñeneen nit ñi nga xamante ni ci yeneen tarixa lañ nekkoon it ginnaaw boo xamante ni gis nañ lu leen doy ñoom itam ñu bàyyi loolee lu ñu nekkoon bàyyiwuñ lañ newoon sax ndax loolee ñu nekkoon ci la Sëñ Tuubaa nekk waaye dañoo gis nekkin wam ca nekk gën a pësteefu gën a ëpp ite lañ newoon ñu ñëw yokk seen pastef yokk seen lu feddle ko ndax sëñ Tuubaa moom ci jullee goor rek sariatul islamiya képp la nekk nekkuloon ci leneen wootewut dara lu dul diine lislaam lii lislaam dong la doon woote te wax na ko mag ñi bu dul benn du ñaare diinun siwaa islaami laa yuhamadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon amatul lu bees lu mu sos diine yi lislaam ji yonte bi ne woon rek waaw wax na tam ni man zanna ni xayra xadimil mustafa fa inna ni bi mustafa axdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna mu ni man ku jort ni dara la lu dul liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi sa njort nax na la man liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangu la jaamub yàlla la di surgab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne tur ya gën a suufe moom la jël doon woon nit ku bëgg àdduna bëgg doon dara ndax tur ya gën a suufe ndax nit ñi fi mu doon nii lu ñu wax yow ban la ab jaam dong nga mooy mboolem xeeti suufe yépp dajale nañ ko yan ci sa kaw moo tax moom mu jël tur woowu tudde ko boppam ne Abdul Qadim la tudd alxaddim mooy surga bi yonente bi kenn ku ci ne xam na ku doon sab surga ni nga koy traité kon wutul woon diirante ak bi mbagg li xew ci murit gi léegi nga xam ne dañuy bëgg a suufeel yonente bi jël suñ tubaa teg ci kawam ngir sunu melokaan te loolu mooy nu doon ay jullit yu wér ndax moom ci tombam yooyu mu daan jàngal mag ñi am na tomb yoo xam ne da koo tudde layoo na ak jaam ñi ba yey leen kon mel na ni Sëñ Tuubaa layoo ak ñun te bisub layoo ba dikkugut àggugun fa ñu layoo bis penc dana layoo waaye àggugun fa waaye moom layoo naag noonu fii ndax dañu bind naa bàyyi fi wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis yàgg diwuma fi siiwa diwuma na ngeen def santaane yàlla yi muy seen sëriñ te bañ a def aw sant muy seen sëriñ bu ne wax naa ngeen dégg ña jamonoon teg moom doon dégg kàllaamam dégg nañ lañ wax musa santaane dara lu dul jaamu yàlla dara rek lu ko nit mën a a waxal lu dul nit ñi jaamu ji yàlla te ne ca amut jëf naa ngeen gis kenn mësta gis mu jëf lu jooy ak jaamu yàlla ca la nekkoon ca la doon xiirtal ñamu nekkaloon loolu ñam nekkaloon ñëpp gis nañ ko bind naa bàyyi fi lim bind lépp luy xiirtal nit ñi ci jaamu yàlla rek la amul laneen lu mu def lu jëm ci laneen li mu bind lépp nag buñ ko càmbaree weddiwut ay waxam weddiwut ay jëfam moo tax mu ni bind naa bàyyi fi kon nun ñëpp danoo war a maase delluwaat ci mbind mi ngir xam sunu diine xam itam li nu war suñu diggante ak suñu borom te buñ ko xamoon rek dana dana yomb ci ñun waaye da ngay gis ni nit ñi bu doon téeméere juróom-ñaar fukki bi jànguñu te seen ñàkk jàng googu yi leen jural mooy seen bakkan la ñuy wéyee te nañuy wéyee seen bakkan dëppoowut ak ni sëñ bëgg mooy dëppoowut ak li yàlla digle dëppoowut ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale loolu nag ku ca nekk bu ëllëgee pertement rek la lay jural moo tax nit ñi faw ñu jàngi seen diina moo taxoon mu wax ni war loolu digal naa képp ku aju ci man nga jaamu ji yàlla sa borom tek ci nak ni warul na len bindal len téere yi ngeen koy jànge kon sëñ bi wacc na lim bind ci téere mom mané su ko sosal mané su ko tomal mané su ko takal bind na ci nu wara a yalla mo taxon mu tek ci nak ni na ngeen def santane yalla muy seen sëriñ te baña def aw sant muy seen sëriñ kep ko andal te soñu la ci jaamu yalla fatli wala lëggeel yalla boy bo nga xamni and ba amalu la ndariñ bu fekke amé wo ci lo astut so soo mën a ci aduna boy bo nga teel ko wacc te setti lenen ndax ya ngay sank dund waaye bu leen def aw sant muy seen sëriñ nit ñi nag sant la ñuy topp léegi daanaka jaamukati xiram lañ maanaam ñu ngi tuumaal ñii jaamu xiram waaye bari na ci ñoo xamante ne nii moom ay jaamukati xiram rekk lañ ndax fañ ne gisuñu fa yàlla digalul lañ fa dara itam lu ko seen borom lu topp seen bakkan rek lañ leen di wax te ñoo nga fa di ngar ngari loolu na képp ku ko def la fay sëñ Tuubaa dafa daan wax ni lépp lu ñu leen digal te yàlla tax ñu la ngeen digal leen ko na ngeen ci góorgóorlu ka digal bu amut lu leen fay yàlla moom dana leen fay ndax yàlla am na fay mu ne ku len digal lo xamanteni yalla digle woko lank len ndax mom ci fay te yalla neeku ci kon pertement la mo taxone mu wala wala tujalis ghayra man bihi tuzat, diinan wa aqlan abadan tanal murat, mun la boy tok bo deme bay tok ba beug a bul tok ak ko xamanteni mun la jariñ ci sa diine mun la jariñ ci sa aduna nana yoy mom dang ko baye walé xel moy képp koy togal nga xamanteni ni da nga bëgg jaxaso ak mom te nga natt ko mënu la jariñ ci sa aduna mun la jariñ ci sa diine seigne touba neena koku mu ma tub ànd bay ba ngooc motax tax mu daan wax tabiri rijal xab sohba de len leen dugu len leen nattu góor ñi bala nga and ak mom motax seigne bay jaxat naan dugg ci mbir gaaw dugg ci mbir worut gaaw genn ci mbirit worut wóorut li gaaw dugg di bon bon gaaw genn ko raw motax nit ki dang koy analyser chambar ko bala nga dugg ci mom moy qualité yi ñi xol ci doom adam na ne nek ci mom nga dora and ak mom su ca nekkut nga bayiko moo tax sëñ tuba lolou rek di rub limu nek njariñ ci lolou rek la doon jangale fanen fu mu nekkon ci aduna yi loolu dong la fa doon jangale moy beggon ñu doon jaami yalla yo xamni dañuy sax ci jaamu sun borom te tek ko ci sunna motax tax mu ne rajaau jannatin bila taati bi sunnatil mahi xurórun yati kep ku yaakar aljana te wo jaamu yalla tuba neena nga nga sa bop maam la nga yaakar doo ko ca sa loxo motax mu doon digal mag ñi na mu ni eh, kep ku wacc ci kusu bammel te yobale wo fa ak njub dang ko reccu te nit ñi nag daanaka dañuy fent rek xol num leen jubo moy def nañ man nañu am aljana ju and tok jaamu yalla man nañu am teranga ju and tok liggey man nañu am noflay aduna bo xamanteni ni manam maanaam benn coono du ci dug yoy yep ay jaxal la bi jangale wut lola bindu ko waxu ko mak ñim mu yaroon itam nekkuñ foofu mepp mak mom musa yar bo deme dang koy fekk muy jaamu yalla ma mag mu sëñ Tuubaa yar rek magum jaamukatub yàlla la ndaw itam ci jaamu yàlla rek la doon doon moo tax baat yi jamono di fent dañu ko sànni benn amu ci njariñ léeg-léeg nga dégg gaa yi naan tëdd muy dox wala toog muy dox yooyu yëpp ay slogan yoo xamante ne nii saytaane nañu ci war rek waaye amut parce que bu fekkente ne ni toog muy dox da nga naan toog ñuy doxal waaw ndax bëgg-bëgg yi nga am ki koy faj jaamu yàlla la bu nangoo liggéey kon yow boo liggéey woon ci ngay ëpp jom ci ngay ëpp personnalité ci bi nga lànkee bañ a liggéey pare ba nga faj soxla boo jaamuwut yàlla it bu ëllëgee jaam bu yàlla gërëm moo lay tiinul ci suñu borom kon dafa mel ni kon boo jaamu yàlla ca lay dàq moo tax yi ñuy wax yëpp sëñ bi wax ko sëñ bi moom li mu soñña mooy liggéey kasbul xalaali fardun yantami ala kulli muslimin bi xëyri waxam waaw nee na fàggu lu lew dafa farata ci ñëpp daam am ñoo xam nag dañoo démissionné ci dund ci liggéey lu ñu dundee te faw ñu dund moo tax il faut ñu créer ay slogan yoo xamante ni ca la ñuy sukkandiku ba mën a dund waaye sëñ bi daal nii la nekkee woon njaareem mooy ak dundam